ñuy gërëm suñu caméraman El Hadj Youssou Cissé. Euh, bu ñu toogee ci plateau bii nag. dinañ wax sa diggante. ak tafsir imaam. bul takk sa kanam bi waaw alxaaji Keba Diagne bul wax li ma danañ wax ci tafsir imaam alxaaji Keba Diagne. nga xam ne phénomène la. nga xam ne laaj yi mu lay laaj. da koy teg ci lu wóor ci lu wér mu laaj la ko. ci li mu bëgg a laaj. waaw mooy ci lu wóor loolu la ñuy wax. Euh, mën nañu wax loolu. Hmm. Euh, Modou Keba nga wax ko barki démb ci seen hôpital bi. Hmm. mu am ñaan gum la ci ñaanal. Hmm. na la ubbi ngeen hôpital mu ne alhamdulilah yal ngeen bëri malaat. waaye Modou loolu yi de li nga ci wax Keba Diagne dafa mel ni sa xol neexul ci lim la wax. Ah, neexul dëgg-dëgg neexul parce que nit soppee kenn du ko ñaanal dee donte soxla la foofu moom xamoon na dina wér. dama ko ne Keba yal nga bëri malaat nit du ko wax. ci hôpital yal na ku fa fajoo wér. wala ku fi dikk fajoo yal na wér génn. waaye yal ngeen bëri malaat. loolu taxul kenn nag taxaw ak hôpital mom loolu ci njuumte communication la Keba du suma xarit. déet way wa déglu ma rek non dama lay wax du suma xarit. Hmm. parce que xarit yéenay bokk xàndandoor yéenay bokk way Keba gangam lepp ñak la ak mbon ak yak <laughs> te loolu du ma ci ànd ak moom jigéen bi dem na man xamul man du ma seetaan sax commentaire yi waaye dégg dem na ba sa commentaire yi. Hmm. ñu ne dafa naxay dara dafa jafe nañ ne muuru ko la xare de la dara wala bu dee dafay attaquer rek Keba. dafa attaquer wa mais ñom dañu wara xam lima Keba la laaj ndax ñom bëgg nañ ko mu xam nga waa ci démb ne leen képp koo xam ne gëm nga keebaa ci li ma wax hmm. yàlla nga xam loola jamal faru ji sa tigga ja hmm. yàlla ji bañ a taw nga kuudaan ko kaa yi bañ hmm. kon nga yow bu fekkee fa nga ànd nit ki coow li mu laa yeen digal doo ko def loolu ànd furij la ci téere mbayam bi la bind de nee na amul téere eh. keebaa amul téere yow dem nga ba gis téere man loolu du téere di bàyyi garaaf bàyyi garaaf waaw bàyyi garaaf du di faru di faru gerte naaf ci ker bàcc ci guddi gas juróom-ñaari fan gas juróom-ñaari doog a naaf leen ku ci gëm keebaa def ko naaf ci loolu téere téere xam nga lan la. déet yow kay xana da nga téere la kay xana da nga nan du xam-xam bo xam ne yow da nga ko. ñu du mais mën naa mu am ñuko ñu lu soxla xam nga lu tax du man lima ci xam ne du téere moy mm. yow kenn du la gasal. Mm. nga ba fa juroom ñaari fan da ko da kassa jébbu. non du téere. mom mo ci gis xam-xam. loolu du mom mm. comme mom wax na na kon xamone bay naaf ci ker yow yow ñaan nga yalla bay hectare ab gerte da ko naaf ci ay ron ak te gerte ngelaw da ko wolo nga nañ ja bacci ji guddi lu xëy na maanaam waxi dof yooyu na la may wax ma da ko tontu tontu nit nit ñi ne wax fa nga naqaj rek mais du lu ma ca naqaj rek keebaa ci li mooy wax moom daf cee xamul dara. keebaa nee na yow léeg-léeg nga wëri sa tool fekk mbaamee yàq mbaam mbaamee lekk ci. Ah. wala gole yi lekk ci. Ah. boo ñëwee looy wax mbaam ya ak gole yàq nañ sama tool. Ah. nee nañ foofu mu ne keebaa nee na. foofu xàll la du kër. yéen a fa fekk mbaamee ak gole yi. kon yàqu ñu dañoo jël ci lañ moom. waaw yàqu ñu loolu dëgg la yàqu ñu jëliñ ci moom moom loolu la wax du dëgg parce que lu dëgg moo ne yow yaa am nga oto waxtu na nga romb garage mécanicien mais bëgg faa taxaw lu la faa yóbbu du paan mm-hmm. te paan doo ko bëgg ci oto mm-hmm. ah? li mm-hmm. ñu xam mbaam àll dëkk waaye nag bëgguñu yàq fa loola gis gerte ba mu toll ci tóntoona mbaam àll di ko jas yëpp loolu bëgg nga bëgg léegi nag moom mu dëggal na moom mbaam yi ñun ñoo leen fekk ak gule yi ñoo leen fekk waaye bëgguñu def loola boo ne Kéba dafa du baykat daf ñuy jaaxal ndax Kéba daf daan jaay jaxatu seret ak jaxatu la daan euh, ak pataas moom la daan xamee da jaay ci dëkk yi fu ne mu wër da jaay ba jeexal. Kéba pataas pataas lañ ko joxee. seen ka taaliba yi mooy maali mag yi ñooy liggéey moom moo gën a bañ tàng xarjata lu liggéey lamp rek ak leer jaral na ko lu ne moo tax mu ne Ndakaaru ñu jox ko mu reconcé jaayi pataas waaye kee amul par cas pataas du boo kaani du boo kanja dara Kéba amul bu nawet jotee mu toppatoo li ngeen filmé ni gémmee ah Kéba nee na moom yàgg na ci pataas ji de ndax bu yeggaan ci waaw yàgg na ci pataas ji ñaari ma ci lii yàgg na ci pataas yi pataas nuñ koy toggee yàgg na ci pataas yi ndax moom Kéba boo jàkkaale moom présentement nii da nga xam ne Kéba ak des na tànk fan ni lama liif buñ tomb noonu la mel nii la mel déet waay waaw tànk yi eh. Kéba ka tànk yi de man tawaaxu waaye sëriñ la de ci kaw sëriñ ak lan sëriñ moom sëriñ moom du dara sëriñ li nga ne sax sëriñ nga ci. waaye tafsir la tafsir kenn du ko. fu ko def keebaa tafsiru benn loo xamante ni nit ñaa ngi ko fa jublu ci lu noonu lu baax kon lu mu tafsiree. tafsir ku xam xam-xam la ci wàllu beek. déedéet waaw beekee beekee moom fu ci jutu. xamatul fi mu ci njaañan ci njaañan xamatul beekee. beekee amatul beekee bi bu métti góoma. Mm. lépp saaba asim la rek xamatul. lu ko daan indi. garab yi daan korom korom si nga xamante ne nii dafay dem bay waaj a ñor te mm. mu ngi mel ni tey boppu njëriñ soo ko dagee poyo om ko ñaqi de mm. loolu mooy indi beeke mm. day sab xorom te du xàgg ca xorom léegi nag ñu ne ko wàll def loolu beeke euh, nee na daal mu ngi waajal lu am solo ci seen diggante yow ak alaaji euh, ak euh, Omar Cissé kër Jibel Suun ak ki nga xam ne mooy alaaji Mbay ndax nit bu la ëppee dara ca xam-xam fokk léeg-léeg mu leen ci leen ci jàngal ndànk-ndànk donte na yéen yow yow ci seede keebaa wana ma ci tabaski naan na ay suub yoo xam ne fa ñeen ko delloo si ndax ku ka xam Keba Diagne rek bu la joxee surga fa ne xam na ay surga yoo xam ne fañ koy ne mën nañoo wàññi surga yi mu ne ma fa xam ñoo xam ne fa leen jox boo xam ne yow da bàyyee garaate fa ngay toog ba mu taw nga doog a dem ruuji fa ngay gas juróom-ñaari fan doog a naaf mm. doog a dakkase mm. loolu ne man doo ma gën suma kër Keba moo leen ko yóbbu loolu Keba moo leen ko yóbbu ba loolu mu ne surga mën a soxla ma ko mu ne li ñuy fayee ko mën na ko bu doon jar juróomi junni bàyyee naa ko surgaay Kébaay waaw bëgguma ko pourtant surgaam yi am nañ solo waaw